dañuy tënk salaamun yëpp rekk daal ne ñëpp yi ñu leen wax salaamun ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fen man di nekk daal dellu si ci xaaj Mbàkke rek ne ko xaaj Mbàkke salaamun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yaa oustaz salaamun ñoo ngi lay déglu <laughs> ñu ngi lay nuyu baax a baax jërëjëf waaye wala ñoo tàmbali masaw la nag waaw ndeysaan. waaw ma saw la ci ñu ñu wàcc sa kër. waaw ma jël sa bagage yi. waaw ndeysaan yàlla na feeñ ak jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na yóbbu saw ay. amiin bu feeñul. amiin yàlla na feeñ nag. amiin amiin parce que gars yi de moom ndekete moom. waaw ah, tubarkaale ñoom de. xam ah, ab sëriñ ku ko ku ko dul yërëm. xam naa yàkkamti nañ seen wërsëg. ku koy ñëwee daal. <laughs> doo ko yërëm waaye nag saa yu raa incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf jisaakalaaw xayran amiin amiin ngi lay masaw hmm. jërëjëf am na solo oustaz na ngeen def ak coono yi waaw noo ngi sant yàlla bu baax suñu bàkke hmm. noo ngi sant yàlla bu baax jërëjëf di sonn te bëgg a bañ a a bañ a noppalu hmm, di sonn ba ca kanam am na suñu bàjj naan wax naan na bant sew. waaye moom dam ndeysaan na bañ sew bañ a dam loolu daan wax waaw ndeysaan wàjjën yaa ma waaw ndeysaan mm-hmm. est-ce que di la jaale bu baax daa mel ni yow itam ay bis gi amoon nga ci ay ay dëj waaw am naa ci euh, benn ab dëj boo xamante ne ma nga amoon fële ca mbokk ya ca Mbàkke mm, ca Mbàkke waaw lu ko jiitu ca càlle ca càlle waaw muy ay dëj mm-hmm. bi ci Mbàkke ko ki génn àdduna mm-hmm. moo ki ñu doon jàngal alxuraan xam naa bu ñu bokk ndey ak bàyyi bokk nañ ndey ndeysaan nekk cëkub-këb wenn sàkket dox seen diggante mu doon sunu magum daara ndax fekk nañ ñun moom mu jàng ba watt ba noppi mhm. waaye nag mënul alxuraan lool mhm. bi nu wàcc kaamil ba bañ ne am jukki bu mhm. dañ koy jox jukki bi ko mujj rek mu dóor ko mu daanu allahu akbar waaw noonu de la ci meloon allahu akbar bàyyi ibra jéey macha allah lool suñ mbàkke loolu kii maan la oustaz ñun bi ñëw ci daara ji bu ñu ñëwaan laylatul xadar hmm. buntu kër Baay Laaj màggal lay jóge dem ba ca jàkk ja xam nga hmm. xam nga dëkki kaw yi dañuy wër jàkk jeeg teen bi hmm. kër yi wër ko day jóge ci kër gi waaxu waaxu ba ci jàkk jóge ci jàkk waaxu ci kër gi waaw taabalee bàqar jëm naas yi allahu akbar waaw bala ñu ba ñu salaat rek mu dóor ko waaw léeg-léeg mu dugg ci àlliway kenn nga kontaan. tawféex lañ amoon ci téere bi de. mënu fee weesu macha allah mënu fee weesu ba ni mu gënaat mu mës a takk ay lunettes. Mm-hmm. Mm-hmm. takk ay verre di liir. Mm. mukk ku baax woon te man di alxuraan. dëgg la macha foo ko fekk nag mu nga jënd càngaayam teg. Mm-hmm. sàllaw càngaay lii ñu ko sàngi moo ko jënd. te te keroog mi gën a àdduna ñu naan ko hôpital mu ne ah déedéet man kay lu may dal na ma dal sama néeg bii. daal di génn ñu dem fekk mu génn càngaay li teg daal di dog ndeysaan nii allahu akbar waaw Baye Bada Dieye allahu akbar yal na ko yàlla yërëm ñu koy jàlle mbokkam yëpp tubaarkàlla yow tam di la delloo jàll jërëjëf jërëjëf oustaz daa mel ne hmm. àdduna ak noonoo ànd waaye kooku bàyyi na aw woy waaw ndax euh, dund ba noppi rafetal sa digganteeg téere bi bañ koy fàttaliku loolu loolu daay yital nag loolu ak mokkal gu wér lay doon nag dafa ñoom moom dañoo amoon alxuraan wér a wér la ko defoon sëñ Bakk waaw ndeysaan gu wér boo toogee leen ko ci ñaari baat ak mu dem ba nga ne ko doy na. ndeysaan. waaw cey te musta fëtt rek benn yoon. déedéet allahu akbar. da koo dëkkoo daal. da koo dëkkoo. Mhm. ndax foo ko fekk mu ngi jukki bi. Mhm. ñun foto bi ñu ci am sax mooy foto wax dafa def tiim tiim cëri nii. benn mbokk ñëw may ko kamil mu ne ko waayu ku ne la sama kamil bi daa màggat. <laughs> ndeysaan. xa mu ne ko yàlla xam na sama kaamil daa màggat waaye li la li la wax ne daa maggat ba nga ni mu kaamil daal loolu la ma jaaxal ma jaaxal macha allah macha allah <laughs> waaw est-ce que mhm. yal na ko yàlla yërëm amin yërëm ñi nga xam ne ñoo jiitu ji ñëpp amin ndeysaan tuwarkal la mhm. daa mel ne ci eh, tey ci guddi geeg suba ci la ñuy fàttali itam génn àdduna ak eh, Serigne Pape Malick si eh, si daaw rek mu daal def at xaat oustaz moom itam ndeysaan doonoon kenn ci daara ji waaye doonoon jàmbaar lool te masoon a mën a wax lu rafet ak rafetale diggante tey waaw mhm. moom day doomu Serigne Babacar joo xam ne da koo mayoon Serigne Cheikh ndeysaan mu jàngal ko alxuraan formé ko def ci moom jikko yoo xam ne jikko yu mat la. Mm-hmm. ndeysaan. waaw ndax seex moom keneen la. dëgg la dëgg la Serigne Cheikh ah Serigne Cheikh. waaw eh, keneen la ci moom. te mm-hmm. daf daan jàpp ci nopp Pape Malick. ndeysaan moom ba mu ñuul ko. wallaay moom ba mu jël ay jikkoom. la waaw. Mm-hmm. jàmbaar la woon lool moom Pape Malick. nit ñi duñ ko fàtte mukk. mu la daan tooñ noonu di la kale bu la. waaw waaw diggante sàll ak fii ak yooyu ci am ma ah? moom dafa ma dafa moom daal mu mënoon rek. dañ ca dafa sori woon ci ñun lool nu sori ci moom. ndeysaan ndax su ma ñëwee ci gàmm gi lu mbooloo mi xumb xumb bu ma séenee. Mhm. wax ñaari baat ci man. ndeysaan sunu sunu bordee ba noppi. Mhm. bu ñu duggee mu wax ñaari baat. ndeysaan waaye jëlee ko ca magam ja Xaaj Abdul Aziz Al Amin. wallaay ndeysaan moom it noonu la meloon ci nun mhm. waaw yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal at nag lu gaaw la lu gaaw la de oustaz. at ak gaaw moom kay da ngay mujj yàgg yéemu sax ci dundu gi nag mm, maanaam gaawaay bi ëpp na oustaz. gaawaay bi ëpp na. Ah, ndax 2021 fi mu ne ñu ngi ciy juróom benn weeram. Mm, juróom benn mu daal di xaaj xaat. waaw ndeysaan. daal di xaaj xaat. allahu akbar. waaw. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal woyofal suuf ci koom. amiin amiin yàlla na bàmmeel dina am amiin amiin. waaw macha allah amin yaa rabbal alamin jërëjëf oustaz xam naa gannaaw dama ami gande <laughs> eh, waaye pour actualité yi moom ay bi si ñu génn ak yëpp moom bari na lool lool eh, daara itam bëgg na cee waxtaan ndeysaan lool xam nga politiciens yi waaw fi ne tax nañ ba daanaka hmm. dootoo dégg émission économie déedéet doo dégg bu social hmm, hmm. doo dégg bu environnement rek waaw daa mel ni ñun oustaz politique rek mooy actualité toujours daanaka fex fexe ni bu occupé rajo yëpp ak télévision yi est-ce que loolu yóbbaale wu ñu bay seen liggéey ni ñu waroon a taxawee sax est-ce ñu ngi koy taxawee déedéet baa nekkuñu di politique rek foofu mun te nekk dañuy hmm. politique mun te nekk kee moo war a falu kee du falu hmm. waaw hmm. kee moo war a jël maire ba kee du ko jël kee liste bu moo ca nekk kee du ca nekk rek ci la ñuy nekk rajo yeeg télé yi yéeme na dëgg la waaw yéeme na lool dëgg la te te ñi koy def mu mu xam naa bu fekkee mat nañu quinze pour cent ci xeet wi la mu koy ëppee du bëri. dëgg la waaye daal jël nañu xaw ma otage lu ñu jël xaw ma daal. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye yéeme na lool. Mm-hmm. kenn defatul dara politique politique politique lay leen war na xaara. wallaay waaw te itam bu doon sax politique boobu moom day programme dañuy defar ñu jóge fi nekk jàll. nga restaan. waaye dañuy nekk fi nekk rek. di coowoo ko reeteet rek waaye te mu te duñ dem fenn. loolu métti na métti na trop wallaay métti na loolu oustaz mhm. ah, am na solo de daa mel ne politique bi moom euh, ay bis gii ñu génn bu ma ko tàmbalee ci démb ñu mhm. nekkoon ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk di weeru juin mhm. ci 2011 daa am xew-xew bu rëy bu ca amoon loolu tax na nag ñu koy taarixal Euh, ren nag ci deux mille vingt et un bi it euh, xam naa un mujjoon fee mujjaat fii. Mhm. Euh, itam ñu bëgg koo taxawal taxawaay yu ama am solo te mhm. waaye ñaari lang yëpp nag ne kenn ku ne ne sa moroom gënoo ma koo moom. Mhm. dinaa ko fàttaliku nooy jàngate ni ñu ko doon dundale démb. waaw xam nga m daa am lu ko juróon. bu loolu amaatul ci pénc mi. m taxawaat du yomb. lay lay yomb mooy li yi def démb xëy na. ñenn ñu ne taxaw. Hmm. wax ne noo ko moom. Hmm. wala gënul ñu leen gënul leen ñoom cee yey. waaw te su boobaa message su m hmm. du bokk ak message su m booba. ndax booba daa am lu xew daanaka mën nga ne nit ñi bi ñu dajee kenn woowul kenn. wala woote ba mooy yëg ñu ne daan daje rek. amul li kaar amul li ndàngam amul ndàngam ñëpp daje. lu xew daa am lu ñuy bañ ñu bañ ko dem toogaat. bu ko defee nag bu ñu agsi na dañ koy dañ koy fàttalikuwaat. Mm-hmm. ca déwén fàttalikuwaat ko ba defe naa ñu ngi ci fukki at. man mm-hmm. naa am fàttali gi peut-être mu am njëriñ waaye njëriñ la daal lam doon am dëggtaan. Mm-hmm. mooy kero ba M23 xewe. te xewe ci kon nangam du fi amee. ndax bu fi amee fi jëm du baax. waaw. loolu daal amoon na ci solo lool macha allah. dëgg la mm-hmm. macha allah muy lu am solo nag loo xam ne itam euh, démb moom biñ koy biñ koy fàttaliku ñaari ñaari langues yëpp ñi ne ci place fii euh, place de l'Obélisque te léegi ñu tuddee ko place nation. Mm-hmm. ala euh, fële itam ca Grand Yoff. Mm-hmm. yooyu yëpp ñu taxaw fa fàttaliku ko ñee di wax ci wàllu troisième mandat ak wàllu démocratie ñii itam di feeñal ne ñi ngi teg mbir yi ci yoon. <laughs> noonu la war a demee. déet ah, mm. en tout cas ñu ci nekk ñoom. ñu ngay ràcc tey ràcc tey sa kanam ku ko def mu dëll mhm. buñ tiimee bool bi ku ràcc tay sa kanam rek mu dëll mhm. moo tax ñee wax na ñoom ñoo ko moom ndax lii mhm. ñii na ñii ñoo ko moom ndax lii waaye daal eh, lu ci nekk ci ñoom ñaar ku ci ne xëcc nga rek bëgg ko moom dëgg la waaw dëgg la m nag xeet wee ko moom moo ko moom mooma nit moo ko sampal boppam waaw loolu moom benn politicien moomu ko dëgg la du pouvoir du du du opposition M23 penc mee ko moom. Mhm. keroog bañ koy jóg di ko def dañ koy jógaloon pour def ko. Mhm. toju ñu dara yàqu ñu dara waaye taxaw nañ taxawaay boo xam ne bii amoon na solo lool macha allah. Mhm. pamte pamte nañ fa nag ay nit. waaye teewul rek mu fa mujj mooy. loola ñu ne woon teg leen ko ci suuf ñu teg ko ci suuf ñu jàll. waaw ndax loola doon na yombal loo xam ne moom. Euh, daal xeet wi xamoon nañ seen gisoon nañ seen bopp ne. li moom bu jàllee moom lenn affaire la doon. waaw yéeme woon na de. yéeme woon na lool wallaay yéeme na lool <laughs> macha allah am na solo oustaz mm-hmm. euh, tey jii itam daa mel ne député yi féete ci wàllu euh, ci wàllu kujje gi. Mm-hmm. muy opposition bi daje woon nañ di dajeeg journal maanaam presse bi. Mm-hmm. Euh, di jëm ci loi boo xam ne dañoo wax ne loi bi di daa jëm assemblée ñu gis ne dafa wuute lool ak démocratie. ndax jàpp nañ ne daal daa ñëw ci ñi nga xamante ne dañuy manifester. wu te euh, bu ñu résister wala ñu def dara loo xamante ne violence la dañ leen di considérer ne ab terroriste nga xamante ne délit lay doon te peine ba leen ciy xaar day rëy lool mhm. ñoom ñu jàppe ne nag loolu nag bëgg tënk seeni i tànk la tënk seeni i làmmiñ mhm. ngir ñu xeex ak seen àq ak seen i yelleef te loolu wërta am ci réew mi mhm. loolu noo koy jàngate waaw ah loi de ñaari ñi koy tëral hmm. ñoo koy layal hmm. ñu koy tëral ci seen kaw ñoo koy commenté hmm. ñee ñoo koy layal ñii ñoo koy commenté. waaye ñaari saabu bu loi jógee. ku yëkkati loi ba am na lu mu joxoñ waaw am na lu mu joxoñ ndax léegi dafa bëgg gën a mën a jekku bay rëkk. ñii ñoom ñoom ndax dañu bañ ku leen jekku rëkk leen. mënut ñàkk ñaari ci loi. waaye nag su fekkee ne dañoo toll ci jamono ji ñu bëgg cee tëral leneen lu mel noonu. ah ñii seen xel mën naa ñaaw. Mhm. waaw mën naa ñaaw. dëgg la mën naa ñaaw ci kaw ndax ay baj-baj du ñëw ci kanam. Mhm. baj-baj yooyu lu ko war a jur. Mhm. bu baj-baj yi amee. léegi te loi bi nekk fi. mbaa kon du njatt ñu bari. loolu ay xalaat la yu jóge ci gaañ ñi te itam ay borom yi xalaat lañ yu mag a mag yoo xam ne. dëgg la euh, ñaari cokkeer mënta réer morom ja ci mbooy dëgg la wallaay. waaw cokkeer. Hmm. mënta réer morom ja ci mboy. déedéet nit la mën a réer waaye mënta réer cok mu ci ci mboy. déedéet su ko defee nag loi yooyu su fekkee dafa am ñu mu ñu mu visé. Hmm. am lu mu ci jëm. Hmm. ñooñu ñoo yey kon. yuuxu wàllu gaaw ca teel balaa dara xew. waaw waaye xam ñu suñu assemblée moom xanaa ñàkk dara ñàkk faa dem de. waaw waaye lu fa dem ñu watale ko moom. la boo xëyee ñu ne wate ko. daa mel ne am na bu fa jotee jaar wate nañ ko. waaw ah, waaw ratifi euh, ratification yi ñu doon def ci wàllu budget beeg yi nga xam ne moo ci aju. mu ngoog moom kay lu lu dem. <laughs> Hmm. xanaa ñaan yàlla rek ñu bañ wax ne diwén kañ kañ ngeen di. <laughs> Euh, tabaski bu fa demee ñu wate ko. la maa la ko wax. cay député yi. waa la ko wax. Hmm, doy na waar de. man de dégg gu ma fa loi bu ñu ne bii moom duñ ko wote. déedéet déedéet. conseil constitutionnel nag mën naa man naa am benn yoon. wala hmm. ñaar yoon dégg ñu ne. Hmm. lii du jàll. moo ne ñoom conseil constitutionnel googu la nit ñi di wax fi mu ne ne wàllu wàllu troisième mandat ñoom ñoo ñoom ñoo ci mën a àddu. waaw te ñoom itam li ñuy eh, li ñu leen di xaar foofu ñu génn feneen bëriwul. mooy loolu <laughs> ñun kay yal na yàlla yërëm parce que ni ñuy fale yëf yi loolu lay doon maanaam ki nga fal da nga koo yiirif duñ ko fal falu daa falu ma falu su ko defee bu amul personnalité taxaw ne la lii du fi am. Mhm. ñu dàq keneen ñëw lii du fi am ñu dàq. Mhm. Mhm. Euh, day mu jàgg rek. ñëpp ñu ne ñu ne ñu ne moq rek nooy nepp. waaw est-ce que tout démocratie bi ñu wax oustaz dafa maye kon wax dëgg yàlla ñu bàyyi nit ñi ko bëgg a manifester manifester ni ñu ko daan gisee noonu baax na wala dañ ko war a tënk dañ leen a war a bàyyi ba noppi waaye tënkaat ko nag ne nangam ak nangam. jërëjëf soo jàngee ci saar wu tudd al furqaan. waaw furqaan borom bi dafa am solo bi mu koy jeexal. ndeysaan. innamal muminuun allazina amanu billahi wa rasuli wa isa kaanu ala amdin jaami lam yashabu xata yastazinuuka da caa dem ba ne ko fa azan liman chita loolu li mu tekki mooy ñii rekk la gëm ñii rekk gëm mooy ñi nangu yàlla di seen yàlla ñu am kilifa gu mel ni yow bala ñoo def dara tàggu ko nag buñ la tàggoo fa azan liman chita luy loolu sëñ Mbàkke hmm. mooy nit du dëkk ci kenn du fi manifester hmm. Hmm. buñ la tàggoo juróom buñ la tàggoo fukk juróom ñett war ngaa bàyyi su boobaa boo boo boo ne boo boo lànkee benn dañuy nangu mais buñ la tàggoo fukk nga bàyyi benn baa nga bàyyi ñaar day mu jàgg danaa dutuñ tàggoo ndeysaan loolu la alxuraan la jàngale foofu moo tax mooy manifestation yi am na ci constitution bi moom ñoo noo ko moom suñuy àq la waaye nag léegi bala ko kenn def nag Euh, fa fa tasinu dañu mm-hmm. dañuy tàggoo dëgg la waaye bu ñu tàggoo it mm-hmm. nit buñ koy tàggu day bàyyi nag dëgg la fa zan li man chita kon loi boo xam ne mën naa tere nit ñi manifester mën nañoo jàpp ne itam loolu li ñuy wax waxuma dictateur lañ koy waxee wala ñàkk xañ maanaam xañ nit ñi seen sax seen i sañ-sañ ci ñu metti li ñu bëgg a lu mën na koo doon mu jàgg nit ñu koy metti loolu day metti mm-hmm. xam nga fi ne su ne fekkoon ku ne dañu manifester ñu ne mm. mu jàgg dañu sàppi nit ñi waaw dëgg la umra xasina lu ñu tere rek mhm. ma nga tàmbalee neex li ñu ciy tuddee acte terroriste nag nga xamante ne xëy na sax loolu am na ci yoo xam nit mën naa manifester te du taal euh, wala mu yàqal nit alalam wala dara waaye nag bu ñu waxee ne lépp loo xamee maanaam ni ñu ko laxase ci euh, ci loi beeg article yi nga xam ne moo ci yëngal nit ñi ndax jirta teey lool euh, hmm. bukki hmm, bukki <laughs> benn bis mu ne lëg kaa ñu rëbbi hmm. lu ñu rëbb tey mana mana mana mana moo ñu rëbb ñu làqatu làqatu waat rek bukki na lëg kii kanam mu ne ko mana mu dóor gis nga acte terroriste ak terroriste ci boppam man nga ne daanaka existé wut lu dul ci ñu koy wax moo tax kuñ ko jiiñ rek moom nga say bokk génn ci yow ñu duma dëgg la waaw dëgg la kuñ ko jiiñ rek day mel ni say bokk da naan ah bon waaw commencé laa daw kon mën nañoo jàpp ne buñ ko xasee ba tey it ëllëg mën nañ cee laxas waaw loo xam ne lu ne mën nañ ko cee laxas kay est que lu ne mën nañ ko cee laxas mhm. waaw mhm. ndax comme euh, bu bukki mooy ne lëg kii kara mu ne ko man a mu dóoru yat te moom lëg la xam ne lëg la mm-hmm. waaye tur yooyu comme moom lañ moom lañ doon rëbbi dañoo fexe ba laxas ci turu mën a mën a ji voilà est-ce que loolu laa bëgg wax est-ce que macha allah wax kon gi opposition bi taxaw tey te bu subaa itam ñuy xalaat ne loi bi dana dem assemblée loolu euh, lan lañ ci mën a jàngi liñ ci mën a jàngi mooy bu fekkee ne mm-hmm. gis nañu ne lii dañ koy tëral ñu xam ne lii jëriñ na réew mi su boobaa duñ aaye kenn ñu càmbar ko xool ko ba ñëpp dëpp ci ne li mën naa nekk mhm. Mhm. ndax député ya ñoom ñëpp ay nawle lañu ña nga xam ne ñoo nekk ci ngóor gaa ñoo ci nekkut ñoom ñëpp mhm. ay député lañu du dëgg di dëpp ka dippi kon ñoom seen bopp ñoo nekk ay mbokk yoo xam ne bu fa dara ñëwee ñoom ñooy toog càmbaral ko seen bopp ay la yoon lii baax na wala ay la yoon lii baaxul waaw su ko defee ñu seet ñoom ñoom luñ ciy def luñ ci def rek ñoom ñu dëpp ci def ko moo gën ŋaayo ba fay nekk moo gën xuloo ba fay nekk sànnante xeer waxante lu bon loolu mënoon naa mënoon naa ñàkk ci assemblée ba mhm. waaye la ko cay tax mu ñàkk mooy yi di xew ni rek suñu Mbàkke mhm. la mhm. macha allah am na solo oustaz jërëjëf euh, mu nekk taxawaay boo xam ne kon ñu koy xaarati ëllëg euh, la cay jàll itam ñu toppaat di ko xaar ndax lu ko jiitu ginnaaw tournée président bi ak yi ci amoon oustaz dafa am beneen baat boo xam ne dafa judduwaat ci biir làng gi muy nervi donte doon nañ ko fi dégg waaye nag dañoo commencé di coowaat coowul nervi yi ngay gis vidéo yi jàkkaarloog seeni moroom ñenn ñi di dóor am na sax vidéo boo xam dañuy fekk ay nit ba seen biiru kër di leen génnee mhm. eh, ci ay nit ñoo xamante ne ñu alteeru lañ ba ceene mhm. loolu oustaz mbirum nervi yooyu noo koy jàngate gis nga suñu bàkk hmm. nervi <laughs> sécurité ak lépp hmm. ci bokk yam hmm. gis nu jëm nii moo foofu fii jëm nii moo foofu ndax day daal mu jàgg dañu am insécurité dëgg la kenn dutul dox ci loo xam dëgg la léegi ndax ay nerveux lañu. Mm-hmm. ndax duñu ko. Mm-hmm. ndax euh, ma ñaare réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ndax foofu la ndax du foofu. fa tabayyanu. ala kulli xaal lu mën di xew fi jëm nii. li muy xeeñ neexul. dëgg la waaw. dégg naa ko <laughs> mu ciy coow. waaye fi ñu jëm nii dafa neexul. nanu taxaw. nan delluwaat ginnaaw. bokk réew mi noonu ñëpp. dalal fit yi. dalal na xel yi. dara ñuul fa lañ koy màcc. dëgg la. Hmm? te it jën yi fi ne ngot yeeg yooyu jeex nañu yaboo yee fi des. Hmm. <laughs> loo bëgg a wax ci loolu sax. mooy fi ne ni ñu bëgg a def nii suñu bàkk ne kut ka kut. dañuy dañuy dañuy yàq dëkk bi. dañu hmm. koy taal dañu koy loolu moo warut am. déedéet loolu warut am. ñu ne ci nguur gi waruñoo xalaat loolu. ñi ci nekk waruñoo xalaat loolu. mais ñoom nervi yi dañ koy jiiñ ñi ci nguur gi. waaw la wax ne ñoom ñoo amee nervi. waaw sëñ. man kay fi ne moom. waaw du ma défendre nguur gi. waaw du ma défendre opposition. wallaay man li ma bëgg rek mooy réew mi moo nu soxal. réew mi am jàmm réew mi dal am jàmm réew mi dal. wallaay wallaay lu dëgg. maa ngi yow amuñu nationalité France. amuñu bu Amérique. déedéet bu Sénégal gi lañ am. ndeysaan gore kon su ko su ko nguur gi defee. Hmm. nun arrangé wuñu. Hmm. bu ko opposition defee. Hmm. nun arrangé wuñu. ñu naan li nu mooy. na lépp dal ne degg nu am jàmm dëgg la oustaz lan moo tax dal googu ak dégg jooju mel ne lu mënta am maanaam yaa ngi wax léegi lu maanaam mbir maanaam dara ñoragu fi bañ koy macc élection yaa ngi ca kanam ak seegut waaye daa mel ne fi mu ne ñun ñoo ngi ci weewu élection nii nii da ku ñëwoon dimanche la ñu war a watee da nga naan dëgg la yàgg na hmm? li ko waral mooy euh, penc mi nan ci am kóoluteg jàpp ni lii ñun ñëpp defar daf na war hmm. di wax luy defar la waaw waaye tëkkoonte beeg dank fanaanal yi mu baaxul. Mhm. bu ñuy tànk fanaanal ñi di tëkkoonte loolu moo baaxul ci réew mi. Mhm. day mu jàgg ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy violence. dëgg la dañuy violent bokk. Mhm. su boobaa loolu baaxul ci penc bi. bu ko ñee defee nañ tey suuf bu ko ñu defee nañ def ñun ñëpp nu ànd. fa yéene def réew mi. léegi nag gis nga suñ mbakk réew lii tax euh, climat ba am jàmm. mi ngi aju woo ci ku bëgg carte d'identité na na la yomb. ku bëgg carte d'identité na la yomb yomb. Mhm. ku bëgg carte électeur na la yomb. kon jamono ji ñi nga xamante ne ñenn ñu bare nga wax naa mënuñoo jot ci seen i carte d'identité warut a demee noonu. déedéet mhm. déedéet. Mhm. waruñu koo jaxase. warut a réer. loolu du wax sunu am réew weesu na foofu. da ngaa bëgg bindu bindul. dangaa bëgg carte électeur bindul. da nga caa bëgg jot jot ca. jàmm ni ñooy. lu dëgg su ko defee ba élection jotee. lu am jël. loola ngay am muy jël day leer nañu suñu bàkk ya boo doon suivre. Iran. seen élection yi. dafa sedd guy. am ñu ko yëgul sax. wallaay fal nañ jenn waay toog na. ñoo doon opposé teg nañ seen bagage danañ def réew mi. ministre de l'intérieur woo na leen. joxante nañu loxo. ki nga xam ne moo gënoon a nekk adversaire am. wala boog ki ki yoroon nguur ga. Mhm. démb xëy na këram. dëgg la wala xëy na pale. dëgg la. au lieu mu téléphoné ko ne ko félicitation. Hmm. dafa dem ba ci moom ne ko félicitation. Hmm. Hmm. loolu li koy war a rek mooy mbindu mi daa war a yomb. parce que suñu àq. dentité daa war a parce que suñu àq. carte électeur daa war a yomb parce que suñu àq. wàcc ji daa war a yomb parce que suñu àq. dëgg la léegi leader yi taxaw ñu tànn ci kenn. liste yi taxaw ñu tànn ci kenn. buñ xëyee liggéey. jamono ñooy. jamono ñooy. dëgg la wallaay lool de ak ñor la laaj moom ak it bëgg réew mi. waaye waaye waaye force yi ci hmm. nekk nii kenn ku nekk jàpp ne fi ngay téye foofu ngay téye. Hmm. kenn fii lay téye ki hmm. mat. fi téye loolu daal baaxul ci sunu itam yëngu yi fi xooloon xam ñu ne treize morts xaw ma ne onze morts xaw ma. wallaay anañu dëgg la. wallaay yu M23 yu mor yooyu anañu. pourquoi nit di fi mor ci. élection yi campagne yi. lu lu tax loolu. te kenn ku mor rek ëpp na. waaw loolu yàlla dimbali amiin yaa rabbal aalamiin baal ma ci tomb bi jërëjëf oustaz jërëjëf muy taxawaay bu am solo donte loi bi jëm assemblée suba moom euh, daa mel ne ëlëm na opposition bi ñoom taxaw nañ lool taxaw mu jaaxal leen euh, xam naa fi ñu ko ràbbeek fi ñu ko yóbboo daa bi daa jege lool ah jege lool dañ ca laxasit ñu jàpp ne lu leen di xañ ndeysaan euh, ndeysaan ñu baree bari ci ñoom ak ki askan wi nañ ne loi boobu moom bu ñemee ba watee ko ba noppi moom baye boon rek ñëw toog ñoom te xam ne amatuñ luñ mën a def na nuy sóor na nuy sóor ëllëg rek ñun ñëpp waaw ñi bëgg falu nañu sóor ëllëg mhm. ñu falo ba noppi nañu sóor ëllëg mhm. ñi bëgg a fale nañu sóor ëllëg mhm. ñi bëgg a fali nañu fa sóor ëllëg wallaay waaw ku ci nekk rek bàyyi xel sa woy ndax du fay ba mukk macha allah Nelson Mandela ku ni déggoon na ko dëgg la woyam bi moo doon fay ci Afrique loo ko mooy am na ñu bëree bëri seen way moom. Hmm. dañuy dox mu yàgg rek mu yàqu. dëgg la waaw dëgg la ñaani bañ la mu yàgg rek ñu ne naan ñaani nangu na. dëgg la de Oustaz waaw <laughs> wallaay ndeysaan lu yàlla dimbali. wallaay jërëjëf Oustaz hmm. xalam bala maa dalali gan ña. Hmm. Euh, ba léegi ci mbir yi nga xam ne moo fi jàlloon ci actualité yi. am na ku ñuy wax capitaine Touré. déggoon nga ay mbiram mm-hmm. mu nekkoon fële ca euh, section de recherche mm-hmm. doon yor dossier bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mm-hmm. waaye ñiy wax ne mm, gannaaw ba mu ne pression yi ñu ko teg daal ak yi nga xam ne da cee aju ci liggéeyam mayeetu ko mu koy wéyal ba day démissionné waaye fañ mujje mooy euh, dañ ko wàññil ay garaatam daal fi mu ne ba mu nekk ab soldat rek euh, ak jëmmi gaa gi ci aju woon yëpp ñu far ko dindi ca moom nooy jàngate loolu diirub juróomi waaw en tout cas daa mel ni ko tolloon ci sax xëy na ñu ne daa bëggoon a retraité waroon naa balaa yàgg ak yooyu. non kooku mooy ki ñu fa jëlee capitaine Touré mooy mooy soldat. ah d'accord mooy soldat bi. waa dafa am nag koo xam ne moo jiite woon gendarmerie wala euh, benn corps ci yooyu ñu jëlee ko fa fal keneen ñu ne nag mi ngi doon bëgg a retraité fekk 3 mois. ñu far ko folle ci diggante. waaw ala kulli xaal ñooñu seen seen seen i seen i laqar ceeg seen i laxas. Mhm. Euh, dafa laxasoo ba mu ëpp. Mhm. ndax waxoon nañ ci suñ bind bi weesu. waaw nekk lu mel noonu. Mhm. bu fekkee ñu ñun yi ñu doon xalaat. waresoon mhm. mën a koo def. Mhm. bu fekkee def nañ ko te ñun yëguñu ah loolu léeg-léeg nit àgg ci sanction. dëgg la waaw dëgg la léegi nag dañu jàpp ne léegi bu def ku nit defee dara lu tax ñu sanctionné la. dañu la jox avertissement. carton jaune. bu dil si ñu jox la carton rouge. ndax defoon nañ ko jaune ak euh, verbal. loolu nag yàllaa xam ba xam àggoon nañ ci am déet waaye daal bu fekkee xëccoo yi nii lay mel boo moytuwul te ku génn wax loolu ne mën naa juddoo ci pénc bi macha allah ma dellusiwaat ne kon daal. Hmm. nañ fexe ba jaww ji daal. Hmm. Hmm. waaw jawwun aadil. loolu moo gën ci ñun moo gën ci ñu bare bare bare. dëgg la jërëjëf sëñ te loolu mooy tax jàmm am ci réew mi mooy tax jàmm am ci réew mi macha allah. am na solo oustaz jërëjëf euh, ñu jaajëfal la baax xam naa bu ñu dalalee gan ñi ba noppi ci ñaareelu xaaj bi. Euh, ñu wéyal tomb yi nga xam ne moo ci war a topp moo xam yi jaar ci email bi la ne ay laaj yeneen tomb yi nga xam ne moo des ci actualité bi ak yi nga xam ne moom la auditeurs yi di jaar ak ñun bi. yaakaar naa duñ doxal seen déglu. allah <laughs>